sur le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV amis chers internautes ñu ngi leen di nuyu di am mbégte kontaan saa su ci di janoo ak mu doon occasion quand même ñu am ndaanaan boo xam ne dootuñ ko présenté ci culture ñu am icône boo xam ni vraiment icône la ci réew mi mais à travers li nga xam aussi liggéey na ko ci culture euh, tonton Magnon Laye occasion am rek tey di bésu suñu xarit suñu soppe ji asu anniversaire am nga a Bougane merci, merci mhm. voilà donc euh, sama teewaay fii tey. Mhm. tout d'abord bismillahi rahmaani rahim. Mhm. Euh, <clears throat> sama teewaay fii tey mooy anniversaire yu Dieye Astou Sarr wala fii dañuy wax ni lu waay waxati waxati boo gisee nen ni nen a ngi. loolu moo tax bi ma woowee ni ma nga wax si Dieye Astou Sarr man ñàkkul lu ma ci war a mën a wax waaye yàlla na fekk li may wax mu nekk dëgg bañ a nekk ay sos bañ a nekk loo xam ne du dëgg. parce que lépp lu nit ki di wax na nekk si aqulaayu taalaam xam dina layoo ak ndeyjooram euh, dama koy jëkk wax rek ni ko happy birthday to you joyeux anniversaire ji mm. asu sare di la wax yàlla nga dund cent trente ans et sans ordonnance boo dundee nga yàgg fi lool boo fi yàggee nga wér boo wéree nga bari xaalis mm. boo amee xaalis yàlla may la tal ko ak wér goo xam ne di nga mën a consommer cet argent yow ak sa njaboot ak képp ku ci yàlla boole loolu yomb na yàlla yàlla na ko yàlla defal ke ñaanal yàlla rek yàlla lafal ko cat surtout musal ko si cat musal ko si làmmiñ musal ko si bët bu aay ak làmmiñ bu aay ak noon yi yàlla laaxal fa yaaxa yagul parce que yàlla ku mu yiiral boppam laaxal la boppam kenn du man si yow dara <coughs> ma war a am lu ma wax nag ci moom parce que sa ostare ñoo nekk na woon daaree ko ci si temps Cheikh Tidiane Diop di tourné ndoo des films ensemble ba yàlla dogal ñu tourné un film man ak moom bu ñuy wax mbëggeel ci kaw mbëggeel ci suuf. ok jee nekk nit koo xam ni ku bëgg aar nekk nit koo xam ni ku sopp aar ku ci am pastef loo tax keroog bañ ko joxee rôle ba. xaarul ba cachet ba ñëw. dafa dem jëndi ay yére boppam boo xoolee film bi film yëpp daf si sañ sañ bu rafet parce que dafa nekkoon benn doomu. benn doomu boos. boos alors man je sais j'étais le fils d'un pêcheur. <laughs> je amoon les moyens. Mm-hmm. alors euh, <clears throat> ma ñëw di ko bëgg. mu préparé wu ab yaayam xaalis et tout dama am gan yaayam di ko kon gan gi am rëy na. ok mais surprise bu mag bi moo doon man bi ñu ma gisee. xaaruñ la fa woon xaaruñ en tant que doomu nappkat doomu nappkat ku amul dara wala kaana bi aussi mm. yow yaakaar naa ne booy am bat war nga jël sa bët bi te tekk tekk ci keneen mm. mais mu ne moom man la bëgg d'accord alors man tamit samay parents dañuy opposé wu parce que nee nañu tontoo Ousmane mi nga xam mooy Pape Dieng mm. faalewul nit si koñ bi mooy ñoo nga xam ne rek dañu beew bu leen yàlla mayee as tuut rek duñu romb nit ba faale ko duñ la xool duñ la yëg donc demul du demuñu si kenn quoi léegi nag ñaari famille yëpp opposé wu. d'accord <laughs> léegi kan mooy le grand perdant c'est nous deux. ok donc film boobu lañu jëkk joué moom ak moom. d'accord ñu nekk ñoo xam moo xam ni. Hmm. artiste hors pair la. bu am Pastef bu man lu muy liggéeyee loolu moo tax keroog ba mu njëkk mu yàgg mu mu du ma ni sax mu bàyyi aar bi mu voyagé vraiment be nekk na benn benn trou bu rëy ci ci ci ci daara. ci daara ka ci époque boobu. waaw ci époque boobu. Hmm. bu rëy parce que jeune fille jeune fille belle classe ba pare mën dafa xawoon rare ci moment boobu loo waa waaye waxati waxati boo gisee nen nen a ngi elle est très belle elle est elle jolie elle joue bien et dafa am personalité ko d'accord loolu moo gën a jafe léegi si si si les jeunes am sa personalité d'accord bu ñu doon jógee répétition ñoo ñaa doon ànd dem jëli car rapide saam man ak moom ak rapatia ok ñu daax car yi mu jigi rapathiaa naan ah di ñu reet di reetaan quoi bu ñu toogee di waxtaan mu naan ah ñu ngi dàq car rapide rek mais un jour dina baax d'accord ma ne rab kañ lay baax nag mm, <laughs> yàgg nañu dàq car rapide mm. ak des fois ak xadis yi nday xadis yi ndeysaan mm. donc euh, toujours bu ñu doon jóge foofu ñoo ñooy ànd ak mu nekk nit koo xam ni jee boo ko doon gis nii mën naa ni mësul am nit xaar ma yàlla tout le temps sourire am ngay jëkk a gis. d'accord ki ñëpp gënoon jox cër nii muy Cheikh Tidiane Diop jee daf ko daan rentré maanaam day dugg bureau tooñanteeg moom ay affaire yooyu ma naan mais yow kii Cheikh Tidiane Diop la mu a ah sama tonton la affaire yooyu. Cheikh tamit ko wax dara si ji eh bàyyi leen sama jarbaat de donc si loolu lañ doon dundee ak ay si moom daara kooc kon ànd bi dafa yàgg man mm-hmm. ñun ak moom kon loolu lañ doon dundee ba ñu nekkee à daara kooc daara kooc d'accord mm-hmm. très bien alors tonton Mandiaye yaa ngi wax léegi tonton Magnon am na euh, série bi wala théâtre bi nga xam ne moom ngeen njëkk joué euh, lan moo la gën a marqué ci séquence boo xam ne certainement aussi euh, jotoon nga ko dund ak moom waaw boobu mooy séquence bi nga xamee ni mm-hmm. dama dem kër seen kër bi ma demee këram papaam woolu ma ma ñëw ubbi néegu jee ubbi armoire bi génn de très belle kii ay robe ay kii naan man am na frigo baar ci këram téléphone bi mooy téléphone fixe bi am na téléphone portable bon téléphone portable bareegul nii ni ma je veux que ma fille en paix daal di jël cinq cent mille francs à l'époque jox ma ko ni ma ni ma voyagel yaayam quoi papaam si boppam d'accord papaam d'accord voyagel defal lu la neex waaye ngi génn dëkk bi nga bàyyi sama doom parce que elle n'est pas faite pour elle n'est pas faite pour toi séquence bu ma marqué la. d'accord ma jël xaalis bi sànni ko ni que je ne suis pas un objet moi je suis loin d'être acheté kenn du ma jënd. d'accord mu ne ma sama sama deret ji deretu góor la mu ne ma deretu fainéant way <laughs> parce que ni ngeen di topp di jeune situation coureur de jupon alors que c'est parce que mbëggeel moom moo ñu laal. ok deuxième séquence bi ma strappé mooy may jee. Mm. bi bi ko yaay ji ñëwee ñu commencé di ko dóor après ñu tëj ko ci. ci biir néeg bi. d'accord bi ñu ko tëjee ci néeg bi mu rëcc génn bi mu ñëwee ñu ma seet si ma pare pour jox ma boppam. ok ma ne ko non parce que man lu ma amul si ngor goree du ma ko jox. d'accord séquence boobu si moment boobu nag si laay aalu aalu mu yàgg ma piqué prise parce que man aussi. mu nekkoon lu triste aussi lu triste parce que man aussi bi may sama papa génn ma kër gi aussi parce que nee na dégguma ay ay ay ndigalam. ok que dama ñëwoon ni leen dama bëggeen ngeen ñaanal ma xale. Mm-hmm. ñoom ñu bañ. te fekk boobu yoroon naa benn maladie boo xam ne daf may faral di piqué ay crise léegi nag bi ma paa bi waxee ni ma kii elle n'est pas faite pour toi mm-hmm. si la ma affaire bi jàpp bi ma demee kër ga moo nami rapatia naan man calme toi ma ni du ma calmé wu ba crise bi daal ma mm-hmm. jee ñëw moment boobu vraiment c'était émouvant séquence bu ma neexaat lu daw yaram la quand même daanaka théâtre bi lépp quand même bu ñu koy wax ba mu demee aussi décidé bàyyi ay parents bi aussi bi nga piqué crise aussi malgré mu nekkoon quand même loo voilà mu ñëw assisté la aussi quand même waay mm-hmm. ah. malgré quand même am na am na loo xam ne apporté woon na ko jamono jooju ci mm-hmm. émotion ci société mm-hmm. mm. voilà mm. Euh, li si kii troisième kii bi mooy bi mu ñëwee jàpp ma man ak ak un ami mm. Rapathia yóbbu ma à l'hôpital docteur bi ni leen kii ñàkkul benn traitement bu mu doon suivre mais def ko bàyyi donc il faut ñu opérer ko d'urgence te il faut trois cent mille francs jee papaam tëj na compte am mhm. <laughs> parce que xam na ni dina gisante ak Mandione mu tëj compte bi bloqué compte bi jee dem ci compte bi demandé ñu ñu ne bloqué compte bi à la banque mhm. léegi nag mu fas yéene si vieux copain ñoo xam ne daan nañ ko bëgg mais heure bu ñu ko bëggee mu ne leen man am naa ko may bëgg mu dem pour ñooñu dimbali ko. d'accord pour mu mën a sauver ki nga xam ne moom la bëgg. Hmm. Euh, vraiment c'était émouvant. waaw mu pare sax pour sacrifier pour joxe boppam. Hmm. mais après mu dal si un sage <coughs> muy Pape Demba. Hmm. mu ne ko mu mu jaaxle quoi mu ne ko pare naa pour lépp mu ne ko ok jël li mu soxloon jox ko ba pare ni ko toogal mu toog. mu ne ko xàmmeetuma la. parce que man jiyee bi ma xamaatoon si dignité si personnalité. kon lan moo la war a jeexal nga jox sa ko. d'accord très bien mu ne dafa war a am ko mu sauver ak affaire yooyu quoi. mu jox ko xaalis ni que ne te demande rien. te pare pour na pour marier ko. Mm-hmm. indil ko bague en or serture de diamant. absolument mu refusé ko donc séquence boobu. Mm-hmm. ak bi nga xam ne bi mu jëlee nag ba jënd ordonnance yi ak 300000 yi ba ñëw ci hôpital bi ñu ne que je suis vraiment désolé mais décédé na ala mu yuuxoo. que ñi ko doon jiyee ñëpp sax de seen yaram. seen yaram non c'est vrai c'est vrai. alors que ah, film boobu c'est plein d'émotions. non mais je pense que ak Daaray Kocc du film boobu rek tonton Magnon bëgg naa aussi vraiment nga wax ma lan moo leen mayoon facilitation ba waxtu wu Daaray Kocc liggéeyee rek mu nekk loo xam ne non seulement dafa am originalité mais dafay nekk loo xam ne Sénégalais yëpp dañ naan lii daw na yaram lan moo nekkoon secret époque boobu. ok je parlais juste de de de. de Dias l'anniversaire de Dias mais xamoon naa ne dinga. non non non mënul man une euh, fois que je t'ai vu poser des questions. <laughs> ok ma congaan ma ne que c'est professionnel. dafa mën a poser des questions. dafa xam. liggéey boo gisee da nga ko war a miin. merci beaucoup sama papa dafa doon wax ni sàcc sax boo koy jàng na mm, mokk. Mm. pour en cas de bëxër ñett ou de wuyaa nga xam fan ngay jaar. absolument waaw. dañu amoon un bon scénariste. nit mën na ko romb nii rek mu inspiré ko mu bind te bu bindee xam na ku muy jox film bi mais il savait partager daf leen wax def leen casting yéen ñoom ñëpp nañu def casting ok bi kan kan mooy jouer ce rôle. Mhm. mais en général dañuy tombe ak moom li nga xam ne moom la xalaatoo te kenn ku yor rôle kenn ku ne ñëpp dañ lay jàppale ah. ok amul crise ay jalousie non ñëpp dañ lay jàppale. dañuy ñëw sax ba sa kër di la jàppale si répétition yi loolu secret la woon si biir ko Kocc avoir un bon scénario benn hmm. ñaareel bi mooy mooy lente kenn ku nekk jàng si jàpp jaa sa morom hmm. après bi mu amaat benn benn amul jalousie rapport familial bu juddu woon après Cheikh Tidiane Diop casting il ne badinait pas avec amu ci xarit amu ci doom amu ci jarbaat moom dafay rendre César à ce qui appartient à César moom daal lii. Mm-hmm. Mandione moo ko moom Mandione la koy jox yoonam nekkul ci Pape Demba. Pape <laughs> Demba moo ko moom Pape Demba ko moom. et Pape Demba jarbaatam la. am na ay mbokk à daaree ko ci mais ku ko si war a jox la donc il faisait un très bon casting. donc loolu moom secret daaree ko ci la woon. benn amul par par parlo. tu as bon scénario et tu as de très bons acteurs. donc loolu si secret mu nekk époque boo xam ne vraiment bari na loo xam ni euh, daara yi daara yi na ko quand même ci sénégalais yi ci côté mhm. yu bëree bëri côté yu sensible mais originalité bi nga xamoon ni yéen ngi ko doon représenté ci seen jeu kenn ku nekk aussi ñu ko daan gis ndax répétition yu métti woon la jamono jooju wala ah, quand même formation dafa <laughs> jiitu par par semaine avant ngeen di le lundi le mercredi et le vendredi juste ay répétition ngeen doon ay ñu répété nga xam ne day ñëw day huilé da ngay tëdd sax di ko wax da ngay dem ba sax yow rôle dem ba bi nga koy jox role hmm. principal bi yow danga nga koy réciter da koy wax xam nga ñu bari dañuy tourner un hmm. film mais il ne faut que réciter xam nga jàng un scénario di jouer avec l'intention la façon de parler marquer les points les virgules kooku ndaanaan dëgg moo ko man mais damay gis ñoo xam ne dañuy jouer mais il ne faut que réciter dañuy taalif rek. génn rek dafa bari léegi quand même jox la scénario bi nga xool après voilà quoi. <laughs> boo gisee nga joué ba pare kenn dab la si mbedd ni jooy ni la man li ngay joué dafa mel ni dëgg la dëgg. mais léegi du ñëpp ah. hmm. am na suñu xam bu ñu joué da ngay xam ni kii dafay fort. absolument <laughs> gëmu ko à 100 pour cent. Hmm. wala toujours si nga toog si salon bi sa xel mi ngi si diw. congaan mi nekk États-Unis di ko seetaan après war ko woo naan nga télé bi. man quand je un film kenn laa xool ni bu kontaanee je satisfait. Hmm. mooy mon réalisateur. s'il est satisfait je suis satisfait. ok s'il n'est pas satisfait du ma nelaw. du ma nelaw d'accord très bien. waaw alors muy tonton tonton Magnon Laye bu Daaray Kocc alors tonton bu weesoo loolu xam nga ni da nga bokk ci ñi nga xamee ni dañu am identité biir Daaray Kocc ba nga xamee ni say personnage à chaque fois askan wi dañ ci daan gis seen bopp. mais lu tax aussi macha allah yàlla may la personnage boo xam ni wala personnalité boo xam ni personnage boo joué rek ñu ne waaw góor tonton Magnon lii la ma ci man. Hmm. ci hmm. kooku du ci man ci yàlla rek la. xam nga mooy yàlla mooy def lu ko neex si doomu aadama léeg-léeg et puis en plus dama bëgg nga xam ni. Mm-hmm. artiste bi lu muy si film lu tuuti la. artiste bi big la yaa ngi dégg. Mm-hmm. big dañ koy teg ci feuille bind. ki yor big bi ak ki yor feuille bi du yow mais yow encre bi rek nga am. <laughs> xam nga ndax xam nga li ma wax am déet léeg-léeg nga gis koo xam ne da koy posé question mu ne non lu tax ma def lii c'est-à-dire dama bëgg a ni nit ñi ci lii deful dara dañ ko def loo <laughs> mu ngi mel ni jigéen bi nga xam ne jëkkëram dafa xëy jox ko deux mille cinq cent wala trois mille ni ko duggal ma demal ma. marché marché. Mhm. mu ne ko chéri lan nga bëgg mu ne ko ceebu jën du dugg si détail. na am xooñ. na am daxaar na jën wa mag yoonam nekku ci moom sëriñ bi. mais nag na fexe ba jabar ji bu koy présenté mu présenté que un bon ci ceebu jën waaye léegi jëkkër soow nag. est-ce que day am cohérence soow mm-hmm. ak ceebu jën donc ki lay def dafa am yaakaar si yow moom lu ci ëpp c'est le scénariste et le réalisateur ok bi mm-hmm. moo liggéey lépp moo toomati kër gi di xalaat personnage bi ni yar ci congaan mu ne congaan mooy joué rôle principal donc yow en fait am nga benn 10 pour cent boo xam ne apporté nga ci. Mm. maanaam ta façon de faire. le mm. jeu et tout. Mm. donc mais li ci ëpp lépp. moom la. d'accord waaw alors leneen loo xam ni indi woon ngeen ko tonton mañoon nga baal ma occasion bu ma yàgg bëgg la musuma ko am. waaw alors alors mais mais mais c'est juste voilà xam naa damay kii rek di xaar jotaay bu yaatu leneen loo xam ni mën nañ ko wax ci biir daara yu Kocc bu ngeen defaan théâtre aussi dafay ànd ak comédie mais aussi dafay bari loo xam ni euh, indi na ko ci réalité africaine rawatina li nga xam ne mooy Sénégal loolu aussi lan nga jàpp ni moo leen mayoon opportunité boobu wala possibilité boobu ngeen amoon. Cheikh daan na def comédie mais benn laps ci biir bi. pour détendre nit ki kay seetaan. Hmm. boo dee seetlu si bëri mu ëpp drame la bindee. mais comme un déchet caché un autre man mooy fekk moo daaree koo ci. Hmm. mais apporte ne ay comédie <coughs> ok ci ñoom Babou Faye ci ñoom Malay comptable. ci hmm. ñoom Mbaye délégué ah. si si si si ci ci kii nu mu tudd Maxure Jigéey bi mu demee si sëriñ bi sëriñ bi jox ko soo soccoog yooyu apporté na si benn mais benn kii bu ndaw la du ëpp mu dellu siwaat nit ñi mi ngi mel ni nga jàng ba mu yàgg ñu la récréation nga génn distraire te après nga duggaat classe. donc Cheikh daan na dugal ay comédie waaw daan même même Baye Ili même kii bi sax nu mu tudd les quatre vieillards dans le vent. Mm. lu si ëpp comédie la mais am na drame. donc Cheikh noonu la daan liggéey. Mm. du ëpp du yées léegi loolu daf koy def koy. daf koy donc ce qui veut dire que mën nañu def drame mais aussi mu ànd ak comédie. wala comédie bu ànd ak drame. bari ay enseignement yu si nekk. mais parce que même comédie bi sax dafay am enseignement. d'accord Cheikh xuloo sax daf koy bind. du ay tàccunte waa yooyu yaa ma def leen non xuloo la boo seetaanee li ci portable. d'accord entre xuloo bi jeew ak manjoon xuloo bu extraordinaire la bu jaar yoon de dafa mel ni ay questions et des réponses ay pëm pom ay demanteeg ñëw. Mhm. ba nga xam ne yow da ngay kontaan sax si xuloo bi quoi. d'accord xuloo boo xam ne débordé wul amul amul loo xam ne da nga ciy dégg di rus. Mhm. parce que dañ koo bind se écrit. noir sur blanc. loolu la Cheikh daan fonctionné. alors très bien mais mel ni am na loo xam ne aussi richesse la pour artiste muy image bu normal mu mel ni aussi yéen daaray Kocc teel nañ ko def si yéen. ñu bari aussi jàpp ni quand même léegi xaw na manqué quand même entre guillemets yenn ci acteur actrices yi wala ñi nga xam ni ñoo nekk ci milieu culture d'une manière générale. j'ai pas bien compris. image maanaam defar sa image ba nga xamee ni xëy na a chaque fois di nga mën a refléter à chaque fois aussi mu mel ni yaa ngi door a ci milieu bi. mu mel loolu aussi amoon ngeen ko yéen. xam nga loolu Cheikh la jëkk woon. moom daf daan balaa mu lay jox sër day defar day defar écriture bi ba pare. xam na ni am na fi ay jarbaat xam na si am na si ay doom. Mhm. xam na si am na si ay rakk. te lu mu dul def doomam du ko def même boo dee seetaan sax ay euh, ay Linguère VDN. Mhm. ay ay kii beneen film parce que Linguère VDN dañ ko dañ ko defaraat. ay euh, nu mu tudd hmm, Apollo. Mhm. am na. de la prostitution bu mu bind affaire yi mais c'est modéré daf ko binde noo xam ni vraiment du du heurté. du gaañ. Mm. waaw donc moom Cheikh noonu la doon def. te amul woon ay ñàkk kersa amul ay waxi ñàkk teggin. surtout amul loo xam ne boo ko waxee ñëpp dar seen gémmiñ. Mm-hmm. parce que un bon film. Mm-hmm. mën nga ko seetaan ñëpp consommer ko Cheikh ni ma la bëgg a wax daan daf daan jël film. Mm-hmm. def ko ruy ruy nag xale man na ko naan. mag man na ko naan mag mën na ko naan ku feebar mën na ko naan. ku wér mën mais du ko def yàpp ba nga xam ne ku amul bëñ bokkuloo. moom bosom lépp ñëpp ko daan mën a consommer. sama maam mi nekk waalo wala mi nekk Yoff wala mi nekk daf koy mën a consommer. di dégg li muy wax bu baax. mu ci mu boo gisee ba tey. Mhm. nga ba nit ki ah benn affaire marqué ko. loolu moom moo ko waral. d'accord. waaw très bien bu ñuy wax personnage yu tonton Magnon dañuy faral di wax nii dafa nekk euh, entre guillemets benn boo gosse ñenn ñi sax jàppoon ni vraiment da nga juddu ci benn famille bu aisée jamono bañ lay njëkk a gis ci li nga xamee ni mooy daaray ko ci aussi say personnage mais aussi li ñu doon wax sénégalais yi nga baal ma entre guillemets tonton Magnon daan naa dégg sax ñu lay tooñ ni bari na ay sëy yoo tas aussi <laughs> ndax ndax loolu mën nga ma si ñëwal tuuti rek <laughs> ma tooñ tooñ bu rëy rëy vas-y micro bi waay xam nga ragal ay interview loolu la woon surtout écrit dañ ma interview xam nga leeralaat ko ko tey. d'accord micro bi tuuti s'il vous plaît. ne ma. Ah. Euh, yow dañ gis ni say fans jigéen ñi ñoo ci ëpp. Hmm. man leen nit ku nekk am na ñoo xam ne góor ñi ñoo leen gën a sopp am na ñoo xam ne jigéen ñoo leen gën a sopp. am na ñoo xam ne góor ak jigéen ñoo leen sopp man maa ne man naa ne daal man jigéen ñoom samay xarit lañu quoi. Hmm. waaw après ñu ne ma non. cest à diir ñenn ñi peut-être xëy na dañ la ngeen baal ma si wax bi dañu la nopp man leen non non parce que dafa am lu may def ñu bëgg ko loolu la ñu ne ma est-ce que mosoo ci am lu la naqari ci ñooñu man leen si parce que am na sama fans yoo xam ne seen sëy sax tas na ndax man déglu lu baax li mu wax ñooñu seen sëy tas na ndax man est-ce que loolu ak tas naa ay sëy ñoo yam c'est différent c'est différent mbër muy bëri daan dem ba këram bay sangu ñu woo ko téléphone ni que sa supporters yi kat dañ doon xeex ba am na ñu ci rayante est-ce que bindkat bu bi bind def naan diw mbër. rey na ay nit rey na ay supporters am c'est donc des supporters qui se sont à cause de Balla Gaye leen bu ma déggee ñu ne sama benn fans boo xam ne. séem dafa tas ndax man daf may metti parce que man j'ai ma propre femme te am na ku mu fans ku mu fan. te taxul ma bàyyi ko. man leen ñooñu di fase seen jabar te seen jabar sax mësuma gis mësuma dégg dañ ma sopp rek apprécier mu am benn crise de jalousie ñu dem ba xeex ci wala ma del leen cité ni leen quatre personnes yoo xam ni ñëw nañu nett li ma ñii seen papa ñoo ma ko nettali wala seen xarit ay ndeysaan sa xarit ba dañ ko dañ ko fase pourquoi daf la doon seetaan rek wax sama xarit bi nii naa ñu nekk ko ko nopp. Mm-hmm. après par la suite mu am ay xeex wala affaire yooyu. ba ba sëy ba tas. Mm-hmm. mais loolu gënaluma. loolu laa wax ni am naa am naa ay fans yoo xam ni. Mm. seen sëy tas na la ndax man ndax man. ok mais pas man maa dem. yaa dem tas seeni sëy. ñu bind ci journal bi. ok j'ai brisé une vingtaine de ménages j'ai kon acte volontaire la kon boo nee j'ai rek. Mm-hmm. dafay mel ni yow yaa jóg fekk jabaru jaamur yi nga def ca la ngay def ba sa yee tas kon les journalistes encore une fois ma di attirer seen attention. Mm-hmm. boo leen di bind nit ñi dañu am famille. dañu am njaboot. Mhm. dañu bokk ci kër yu baax man fa ma dëkk normalement ci fi ma bokk. Mhm. ñoom bëgguñu woon sax xëy na man may def théâtre. yaa ngi dégg. Mhm. mais dañ ko def pour enseigner ñoom ñoom ma si sax encouragé am na ñoo xam ne sax ñoom ma si encouragé. mais kon waruñu jekk mu yàgg rek waxal la loo xam ne ñëpp dañuy dar seen gémmiñ. tout à am na ñoo xam ne mere nañ ma ci. il se prend pour qui <coughs> mais kii il va chuter ah jaay taar la. pourquoi mu naan tas naa ay sëy te yàlla xam na ne ko kooku nag ak jooju mm. ba tey moom ñoom ñu ngi seen ndodd mais nag je pardonne mm. je pardonne à tout le monde képp ku ci wax benn wax saaga ma ci wala nga wax warul wax man ma njoon laay jéggal naa la te yàlla rek tax d'accord waaw mais sosal nañ ma mm. dañu waroon bind il y a des ménages qui se sont brisés à cause, de Mandione. Hmm. Mais pas Mandione, j'ai brisé une vingtaine de ménages. Donc erreur la. Mmh. Et tes yu bëri ne savent pas lire entre les lignes. C'est li ñu gis rek danaan c'est la réalité. Hmm. donc noonu la demee titre rek la ñuy liir quand même ñoom bu ñu xam xëy na texte bi wala li nga xam ne mooy contenu bi. am nañu sax bu ñu defaat. Hmm. j'ai des rawaan qui attirent les femmes. <laughs> loolu yëpp acquisir nañ ko man lu nekk dégg naa ko. aye ah, si loolu wax na dama ne dafa am ñoo xam dañu am rawaan. seen rawaan ay góor. Mhm. góor góor moo leen jublu. te lool dafa am. dafa am ñoom sax seen rawaan. Mhm. jigéen moo leen gën a jublu léeg nga dem si benn kan mun la yow de góor ñu wala gën a bëgg wala jigéen ñoo ma ne samay rawaan man ma njoon. d'accord jigéen ñi ñoo gën a bëgg. d'accord lan la ñu bind. Mhm. j'ai des rawaan qui attire les femmes. mais mais tonton Mandione est-ce que du personnage yi ñu la doon jox rek quand moo la apporté woon loolu te sénégalais yi xëy xamuñu ko ñoom toujours dañuy gis ni Mandione rek quoi or que comme ni nga ko waxee tonton Tidiane Cheikh Tidiane li mu doon liggéey moo waraloon xëy na ñu bari di gis ci yow benn reflet bi quand même. non xam nga nit ñi dañuy dañuy juger nit ki sans le savoir. xam ko. Hmm. li c'est des rôles. am na ñoo xam sax dañuy wax te samay fan si yéen seen waa ji dafa bëgg lu nooy. du jouer lu métti du jouer rôle lu dof. du jouer rôle ku ñàkk loolu la gars yi di wax toujours belle voiture avec une belle femme. toujours jaay taar waay. <laughs> kon dafa mel ni loolu loolu moo nekkoon entre guillemets sa problème mënuñu woon xamee personnage ak li nga xamee ne xëy na mooy personnage. très bien am na ñoo xam ne sax dañ doon jaloux envers moi des hommes parce que seen jabar sama fans la wala seen xarit sama fans la. Hmm. benn waay ndeysaan. dañu mës a dem fee mu may dépanner sama oto. mu jeex mu yaa mu ne ma manjoon baal ma àq. ma ne lan la mu ne ma mas naa la saaga ma ne ko lan laa la defoon. mu ne ma jalousie rek dama ñëw sama kër gel il elle que de toit ma jóg déconné saaga daal di la traité de tous les noms d'oiseaux. ok sans ma xam la ma ne ko jéggal naa la. kii wax si yow mooy ki la umpale. Mhm. mais ki la xam. Mhm. du wax ci yow. man. Mhm. toujours ma ñëw fekk fu ñuy takk mais mosuma fekk fu ñuy tase sëy jullit laa je suis laayeen. qui connaît les laayeen xam seen ak càllate man 18 ans laa jël wér de laayeen. sama papa Seydina Issa la tudd man ma tudd Seydina Mandione ay taaw. donc jomb naa. Mhm. di doxaan sax jabaru jaamur ba kay tas. Mhm. mais dama ni alaaxira day day metti de. mais nag la gaa yu daa baax yi daan def rek. <laughs> Euh. ba leen noon ya bundu mhm. ñu ne noon yaa ngi nii. lépp loolu bëgg ñu def ñu ne jéggal naa ñëpp. man de képp koo xam ne mas nga tooñ ma njool. si wéet. wala ci wax loo xam ni kii. jéggal naa la. d' accord dégg naa lu nekk nag. d' accord très bien. kii dafa bëri tuteur. dafay jaay lii. il choisit des rôles. Hmm. l' artiste ne choisit jamais ses rôles c' le est le réalisateur ou le scénariste mooy choisir des rôles c' est un casting. pas moi je n'ai rien fait. d' accord. <laughs> xaw ma nag lan moo leen dugal si crise de jalousie boobu. très bien <laughs> <laughs> alors ndax ndax personnage bi aussi li muy reflété tonton Magnon gis nañ ko à chaque fois buy wax li gën a bari ci li muy wax day wax français di wane ne aussi vraiment euh, ku am benn niveau d'étude bi la ndax loolu aussi c'est le cas pour yow tonton Magnon. non être français Cheikh sax daf daan bañ ñu wax français bu ëpp. ok xanaa boo ko jaree maanaam nga nekk un directeur de de société. Mhm. wala secrétariat bi wala affaire yooyu. pour wane ni un élève wala étudiant mun la la nga dugal tuuti baatu tubaab. mais li si des yëpp olof lay nekk parce que nee na waaju am na boo xam ne. mu nga ca lieu dii ba mu nga mu nga sës si si zone Casamance ba. Mm-hmm. te bëgg na xam li ngay wax wala ma nga waalo wala ma nga bawal. donc li ma la. Mm-hmm. et puis y a des gars yoo xam ne ñoo ma dàqoon làkk tubaab fop gën ma ko dégg ëpp ma niveau d'étude te ñu ngi woon biir daara ñu ngi woon biir daara ko bu ñuy wax léegi xam naa fi may jeexalee foofu laa jeexalee rek balaa may ñëw ci hommage bi nga xam ne moom la ñuy defal ci Astou xam nga ne léegi ñu bari dañ jàpp ni évolution am na ci lan nga jàpp ni malgré que évolution am na ci production yi bari na léegi maison de produit tamit production yi bari nañu aton euh, ton avis lan nga jàpp ni moom la ñu war a gën a mën a renforcer ci réew mi jamono ji évolution du insolence hmm. évolution du wax lu bon évolution xam nga lan la. Hmm. écrit de ma yëkkati micro bi de très bon scénario. ok am un bon casting joué lu yiw dañu am suñu culture. ok dañu am suñu aada dañu am suñu diine. wax naa ko benn producteur. ñu hmm. leen yéen lan moo tax leen producteurs yu ndaw yi boo leen demee France jàngi ñëw rek jël culture tubaab yi def ko suñu culture. alors que les cultures diffèrent bokkuñu. ma ne ko je te un exemple. Hmm. Inde am na ay temps sur le plan cinématographique ñoo fi sës ñoo fi sut. Sénégal demoon na ba am ay tuuru indo <laughs> nit ñi di làkk indo nii hmm. mais ba ñu bàyyee hmm. ok pap ba ñu bàyyee càpp hmm. fii kii jigéen ñi ak sol mël fa indo jigéen ñi góor ñi sol caaya di tëgg-tëgg indo bañ ko bàyyee dugg si disco daan si la xaw ma mais si la si la cinématographe indo daanu absolument parce que dañu wàcc seen ànd ñun dañu àpp suñu am na nag ay film yoo xam ni hmm. non boo koy seetaan c'est le Sénégal c'est l'Afrique muy euh, comme par exemple boo desaane ay mbetteel hmm. c'est pas parce que dama si joué quoi loolu tout le monde le dit ay ah, mbetteel loolu ñëpp wax nañ ko ay yenn film mais c'est le Sénégal des réalités africaines boo seetaanee hmm, euh, comment dirais-je euh, Hmm. kii Séné euh, sénégalaise. famille sénégalaise hmm. famille sénégalaise waay. du man par exemple. du man waay c'est des choses yoo xam ne dafa nekk suñu réalité. mais am na loo xam ne c'est tubaab. te tubaab yi ñuy toppandoo sax du ñu defee loolu. d'accord insolence. Hmm. wax lu bon. bu ñu waxee ñu ne lu naturel la parce que nii lañ koy waxee il faut appeler le chat par le chat. mais des fois nag bul wooyee le chat par le chat. est ce que aussi ñoom li ñuy faral di wax rek pour gën a mën a jaay culture sénégalaise ci marché international bi aussi moo tax xëy na ñu xaw a emporté yoo xam ne aussi bokku ci. non kooku faiblesse la. Hmm. l' américain bi joué yoonam nekkul sénégalais bi koy seetaan. ok yoonam nekkul si chinois bu koy seetaan daf koy joué ci manière am sa façon seen culture. Hmm. mas nga gis benn américain buy jël ni sama film bi de damay dem dama ko dama damay jël kiiwu Afrique dugal ko ceeg affaire yooyu xanaa lenn mu am film boo xam ne dañ koy joué en Afrique ba nii di dem di ñëwaat. d'accord mais des fois yenn yi complexe la. Mm. culture jaamur nga jël ko rek. Mm. nii dinaa ko dugal si li ma moom. dangay dem ba da ngay perte dix perte les rek loolu moo ñu nar a dal nag. d'accord alors fi may jeexalee ndax jàppooni aussi bokk na ci li gën indi problème manque de formation aussi xale yi léegi euh, kenn assisté wu leen casting la ñuy def léegi ñu ci bari aussi amuñu formation quand bu baax sax. ci étude wala c'est les acteurs. waaw duñu ay comédiens. ok y a nuance entre le comédien ak l'acteur bi nga xam ni. da nga soxla benn waaye bu la jaayal gerte nga gis benn maire bu jaay gerte si rek nga ni oh kii mën a def sama film. jàngu ko xamu ko am na ñoo xam dañ leen këpp caméra. Hmm. ñu ne c'est la première fois. mais léegi dafa war am formation. Hmm. par rapport boo ñëwoon aar ko Pikine aar ko Dakar hmm. aar ko Rufisque. ñu leen di jàngal aar da nga yéemu da naan mais c'est ça l'art parce que ci jàng dawal. Hmm. jàngal ci circulation bu dense gars yi di ko couper de gauche à droite. Hmm. heure bu demee ci tari bu libre wala mu dem France wala États-Unis foo xam ne dañuy respecter les codes kooku dawal fa du dara ci moom. absolument donc yëf yi dafa war am formation. d'accord former xale yi mais xale yi est-ce que nangu nañu formé wu. d'accord mais aussi lan moo tax production yi du ñu choisir noonu aussi ñi nekk ci arco yi ñi nga xamee ne xëy na am nañu formation bi aussi. des fois bëgg yomb. d'accord il veut pas payer. professionnel boo ko jëlee da nga koy fay. parce que c'est son gagne-pain. Mm. alors il préfère gis benn booy boo xam daf naa lan siiwal ma mën naa feeñ ci télé bi rek. Mm. ñoom aussi dañuy defar seen affaire ñu jël leen mosaa ko benn producteur ni ko yéen dégg naa yéen a wax ni les vieux artistes c'est des produits périmés. Mm. <laughs> ma ne ko attention ce sont les vieilles marmites qui préparent les bonne sauces de sept à quatre-vingt-dix-neuf ans quatre-vingt-dix-sept ans art du ci nit si ci retraité ci seetaan nga benn film bu booy Yaba. mère mm-hmm. bi koy joué am na plus de soixante dix ans. quatre vingt ans. Mm-hmm. Yaba. Mm-hmm. donc aar amul retraite donc il faut ñu ñu xam loolu. donc euh, donc ak lu mën a am rek. Euh, suñu culture suñu culture la dañ ko téyel suñu bopp. ñu ngi joué loo xam ni. doy na waar te lu bon boo ko xasee loxo bon dafa bon. boo ko xasee ba dugal sa internet bi c'est pour cent ans. te waxuma loolu sa digganteek sa borom. d'accord ko déglu. yaa ngi am bàkkaar mais ñoom dañ jàpp ni lu bari ci responsabilité aussi ci askan wi la askan wi li ñu bëgg moom la ñuy produire di leen ko jox aussi loolu du ñàkk am nga si xalaat waaw mais est-ce que sa diggante ak sa jabar lu mu bëgg que génn nga si diggu cour bi di hmm. la est-ce hmm. à la peur am na yoo xam boo fóonante benn xale bu jigéen nii la dañ lay jàpp yóbbu la police parce que suñu loi moo ko nangul nañ ko bàyyeeg ñi ko moom c'est pas pour nous de grâce d'accord yow léeg-léeg di nga rus sax yow ak sa jabar. Mm. ngeen tëdd si lal bëccëg. Mm. Mm. tëdd nii di waxtaan. sa doom dugg si. tu te sens gêné. asamaa nga naan oui non c'est-à-dire lii ak lee di ay explication moomuñu ko. d'accord très bien nañ ko bàyyi ñi ko moom. très bien ma doon occasionné waale donte ni jéey asu moom laa la moo tax nga toog fi waaxu mais dama ko yàgg bëgg tontoo ma ñoon quand même. mais absolument looloo looloo tax maa ngi la siy jéggaluwaat bu baax a ah, di la remercier bu baax aussi vraiment ci disponibilité. Mm, mm, mm, dafay def ay social. nee la ça des années plus de cinq ans yoo xam ni góoru daara ko ci kenn xamul lan lay xar di jaar daf koy jaare si Pape Demba. Mhm. mu la képp ku nekk daara ko ci góor woo ko nga jox ko temps mu dem jëndi xar mais bu ko neexoon mu bañ ko si fekk. kon benn artiste bu mu defal defal naka njaboot njaboot naka njabootool mu gépp hmm? mhm. man li ma gën a neex ba gën a neex nag mooy daara yi dara dara dara sutul. jàngum alxuraan jàngum waaye diine hmm. mooy li sut te mooy jëkk te mooy mujj banque yi banque àdduna la rek day jeex mais banque bu wóor bi mooy banque bi nga dawal sa bopp nga sa bopp hmm. te nee nañu heure boo jëlee sa doom nga dugal ko école coranique mu dem ba man wax bismillahi rahmaani rahim hmm. xale bi ko man wax texe na papaam bi ko si dugal wala yaayam. texe na waa asamaa ki tabax daara nag. bu kenn fay wax juróom-ñaar fukki nit ci xeetu yaayam xeetu baayam. <laughs> waaw wax nañ ko waaye asamaa ki nga xam dafa taw ba pare ni kon loolu. bu ko mm. yàlla fayee rek leen la. absolument loolu tax ma ne yàlla na ko yàlla musal si cat de toute façon. Mm. ku tabe la. dëgg la parce que ñii fi def témoignage ñëpp kenn ku si nekk am na lu mu mas a séq ak yow. man dama feebar. Mm. bon après ma hospitalisé fii après ma jom Tunisie faju ji. bi ma ñëwee. mu daal di yëg ni dafa feebar. mu woo ma téléphone aux États-Unis woo ma ni ma man joon dégg naa da nga feebar oh Massa waay. mais man yow lu tax waxuñu ma ko lu tax yow waxuma ma ko ma ne ko mais jee feebar kenn du ko wéli faare te yow te yow boobu jël nga say moyens bopp dem Tunisie dem naa Tunisie faju ji ba ñëw nekk en convalescence di mhm. jël samay garab mu woo ma téléphone ni ma lan moo tax waxoo ma da nga feebar man ko noo jee man <laughs> même fii sax yëguñu xam dama feebar mu ne ma ok naa la yónnee sama frère frère bi ñëw jox ma xaalis boo xamee ni mhm. da tiit mais bu ko neexoon mu bañ ko si absolument ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon daal yal nag fi yàlla yàggal amiin yaa rabbi amiin yaa du ñu géwélu kenn nag waaye ku ñu defal lu baax ñu wax c'est clair nit ki bu fekkee daf lay defal lu baax waxuloo ko booy lim say noon boole ko ci na ko ci boole loolu la géwél bi wax waaw mm-hmm. nit ñi nag dañuy bàyyi nag ba nga kii ñuy soog a wax ay moom lii di la tudd ay ruy ak lii mais jaamu yàlla dëgg lay def jaamu yàlla ñu bëri yaakaar ndax dañuy wax lu bëree bari man jaa sare loolu xam naa ci dara dañuy waxtaan ci yu bari bëri mhm. muy ku bëgg nit di ku bëgg alxuraan di ku bëgg nit diina waaw surtout man diina ak culture ak artistes yi d'une manière mhm. général moo tax mu fonk ma bëgg na artistes yi mhm. bëgg na diine bu daara yi yaatu woon am na ñoo xam ne amuñu moyen pour fay bu internet leen du ñu fay dara absolument mais kooku yàlla na ko yàlla fay. kooku loolu lañ koy ñaanal. te ba pare nee ma daara national la bëgg sax quand même fu nit nekk ci Sénégal boo bëggee sa doom jàngi nga yóbbu ko daaraam moom mu jël ko en charge. mais loolu bu bu que dañ doon wax ne bu ñu demee fii ak deux mille trente cinq. Mm. deux mille quarante diine day xaw tuum rànk. waaw bu boobaa kan mooy nekk imam boo bëggee kaamil kan moo la koy wàcceel. Mm-hmm. mais lii xeex la. xamee ni yaa ngi jàppale islam yaa ngi jàppale Seydina Mouhamed sallallahu si mission bi mm, mm. yaa ngi jàppale Seydina Limaamu si mission bi yaa ngi jàppale Serigne Touba El Hadji Malick mag ñu baax yi si mission yi mm. parce que diine sot la parce que dañ ni domp sax si sot la bokk absolument waaw donc euh, yàlla na ko yàlla jàpp amiin yaa rabbi yàlla na ko alxuraan fay amiin yaa rabbi leeru alxuraan la la absolument ñaan la d'accord kon yàlla na ko yàlla jàppal amiin yaa rabbi yàlla na ko yàlla jubal ak jëkkër amiin amiin yaa boole ci mbaa yàlla yi nga xam duñu am bàkkaar te pare yàlla bëggal leen boppam te la dëgg la yàlla na ko si yàlla boole leen fii ndax sàkk ngeen quand pour la jeunesse sénégalaise mais aussi pour li nga xamee ni mooy suñu richesse bopp muy culture lépp xam ne rek jaadu ngeen def ko pour mu taaral doxalin bi je pense que sénégalais dinañ ko seede ci yéen ñu doon am mbégte di bu baax a baax tonton Magnon toi je t'apprécie merci beaucoup tu wane ne c'est comme l'artiste foraatoo ko jërëjëf merci beaucoup <laughs> merci di ñoo jukka ah ñu lay eh, na mais parce que xamuñu ko. xamuñu où commencer ou où terminer. c'est clair yow macha allah na la yàlla defal ca loolu moo taxoon ah, bay def interview. dëgg la. moom ay dama la woo nga wax ko. ça fait yaa ngi ma si toog man la non non dama la koy préparé. parce que dama bàyyi woon sax affaire interview. parce que yu mel noonu. yañ ma loon moo tax samay mbokk sama jabar ma fais attention <laughs> c'est clair mais bii c'est oral lépp lu ma wax man maa ko wax bokkul ak loo xam ne nga ko wax pare ñu dem jël bopp ba yóbbu ca geen ba yóbbu ca bopp donc euh, loolu moo tax bi may bi ngay wax affaire jiyaa xamoon naa di <laughs> <laughs> c'est une occasion leeral xam na ñoo xam ne bëggoon nañ ma gisaat wax waaw man joon moom dañ ko gëj gis ma leen di wax ne mais maa ngi tourné man c'est clair j'ai tourné sur Mbetteel tourné naa ci une Sénégal. Euh, famille sénégalaise famille sénégalaise. Mm-hmm. seetaan naa jabaru góor gi. du man. ah te am na benn film boo xam ne mi ngi war a génn temps yi. Euh, sur la RTS. fi hmm. vous me le di wax nuru télé bi. Euh, muy euh, muy alal. alal ok muy alal muy hmm. alal donc ak d'autres productions yoo xam ne ngi ñu yoon bi di ñëw. Hmm, d'accord façon nañ ma ñaanal rek. incha allah artiste bi moom loolu rek la bëgg a tourner. incha allah film d'accord. ok ñoon nañ ko ba léegi mi ngi ci production di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin jërëjëf Laye daje sur la chaîne des